الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مانغوك ويروانغوك دخيانغو دنجا تبوبو نقطة تلا لندي ناني كم نيان كو داو نيو جوخ كلمة بي شيخ حسن سيسي تنكو نيوكو فن لاجي نيوكو لن نيوكو دخيرك مدف دي بارتسيبيشن شيخ الكلمة تلك بجنة يدو أكسنة بيولو لدالك soo ma gisaan da ngay jóg di ma gëtandu tey nga gis ma toog fi nga toog bougé woo mu ne ko ba ma lay defal loolu dama doon tarbiyew pour xam yàlla léegi xam naa yàlla soxlaatuma loolu junay di ne ko la an taraani marratan waxidatan xayrun laka min an tara allaha alfa marra ne ko nga gis ma man di benn yoon moo gën nga gis yàlla ci boppam junni yoon ndax lawla al waasitatu lan tafal mawsuut su waasita amutoon rek la nga àgg doo ci àgg kon nag ki nga xam ne moom la yàlla may xam-xam bi mu laa ay ci biir taalibe yi ba ñëpp àgg ci yàlla kenn waru koo fayee fàtte suñ daje woon fii tudd ko rek jàll ne dina wàcc ndax gaa ñi dañoo wax ne inda zikri saalihina tanzilu rahmat fu ñuy tuddee saalihina yi rek ne dafay wàcc te bàyyi ci ñun ñun dañoo jàpp ne huwa saalihu saalihina kon daje pour tudd ko lu ñu war la suñ digganteeg moom bàyyi nag pour wax ci moom gannaaw bu ñaar ñi waxe mu Cheikh Abdullah ak Oustaz Braham dana jafe ndax dégg na ci mom ci bamuy ubbi maada haji abdullah bi nga xam Cheikh Nazir moy mudir ne fatayani sa'adani fi dakhil wa fi kharij ñaari ko xam naa ne yoo xam ne nañ ma ci biir ak ci biti lol baye moko wax ci ñom ñaar ñi sedde ko kon nag gannaaw bu ñu waxee ba pare toppaat ci seeni wax dana jafe waaye ñu sànni ci ay kàddu rek pour barkeelu ndax jataay beeg daje bi Baye madrasa la comme ni ngeen ko xamee dara lëndëmu ci guddeem ak ay bëccëgam yépp dafa leer ca njëkk amam ak ci bi mu amee moom nettali na mu ne njëkk bu may ñëw ci àddina bi dafa am ñaari sëriñ yu ñëwoon Saalum booba sayer mati lañ soxla woon ñu yàgg fi lool waaye mu ñëw àgg ci moom ba jëmmi bés ñu ñëw ci sama baay jàmbatal ko ko mamalaaji booba daf daa jàngale mamalaaji ne leen su gannaaw takku saanee ngeen ñëw sayer ci boppam dana fekkee si dars bi su ma jàngalee ba pare ngeen wax ko seen soxla naa gannaaw saan jotee sayar ñëw mama laa ji jàngale ba pare ne ko ñaar ñii kat yaa leen tax a jóg na nga ànd ak ñoom seet seeni soxla nga dimbale leen ci sayar mati yóbbu leen boobu mi ngi fii ci Nioro Rip laaj leen seeni soxla fajal leen ko may leen alali jamono ja ay jaam ak ay fas ñu ne nag bala ñoo ñibbi ala foog danañ del si kër maam alaaji ñaanal ko yàlla mbir mii mbiram yàlla la maam alaaji benn kenn ci sëriñ sa def na ko dama bëgg laaye yi nga xam ne dafa def baatab mul ko nguur ci alxuraan nga dajaleel ma ko ma dugg ma dugg ko ma dog ci xaatim duggal la ci xalwa pour yàlla may la nguur moom foog na ne maam alaaji ñee na sayer métti ca lam nekk fekk maam alaaji lim nekk moo ko gënal la sayer nekk maam alaaji ne ko déedéet man soxlawu nguur li ma nekk yàlla may ma doom yoo xam ne su ma fi jógee ñu uutuma ci liggéey boobu di jàng di jàngale maam alaaji dajaleel ko laaye yem ko laaj ci alxuraan sëriñ ba dugg xalooji ba mu génne ne ko gisal naa la doom ba mu xam ne mbiram wër na àddina lépp fa jant bi fenkee ba fa muy soyee bàyyi mu ne sama bàyyi naan ko bu ma wax benn doom waxal na sama doom yëpp ni benn boobu la ñuy mel mu ne ko man benn laa gis kon kooku njëkk muy ñëw fii xamoon nañ ak ñëwam yaayam ci boppam géwént na bi mu ko ëmbee weer wi daanu ci néegam loolu itam firnde la kon nga xam ne Oustaz Brahima wax léegi ne jant la weer la feeñ na ci ñaari wax yooyu yëpp jant ak weer nag mënta soppeeku lu lëndëm képp ku ko bëgg a lëndëmal rek yow yaa lëndëm waaye jant ak weer duñ lëndëm bàyyi استاذ wax na سو ne soo mënta wax nga wax boog dara ci ay bésam yu mujj baye ni ni Cheikh abdoulay don jàngale legi ci ngeel benam bam deme ba nekk ca mujjam itam baye mooma rek lañ fa gis dama koy xol suma xel di daj toujours bayti bu sayri qad naa la gaayata ma yarumul muntahi min rabbihi wa lahu ijtihaadul mubtadi lépp lu nit di soxla ci boromam am na ko te waxtu boo ko gisee rek dafay mel ni mi ngi soog a léegi maanaam ma ngi ca njolloxtan la te mi ngi mel ni mi ci commencement bi julli du ko raw wiir daam sax du ko raw julli du ko raw nekk nañoo moom ca bés yooyu dem na ba nga xam ne mën a mënta jàpp ta tiim ndax ñu ngi bandaas loxoom def ci benn pikir ba waxtu julli jotee mu ne ma man nu may jullee tey ma ne ko bàyyi yow bul julli tey man booba man maa ngi taawil rek laa yukallifu llahu nafsan illa wasaaha yàlla tegul benn jaam lu mu attanut mu ne ma loolu la malik wax دفنا ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك